Je m'appelle euh, Serine Cherkani. Je suis étudiant en Master 2 à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, euh, par ailleurs, le coordonnateur du maire départemental de Thiès. Euh, messieurs les journalistes, le mouvement des élèves étudiants républicains du département de Thiès voudrait tout d'abord remercier les représentants de la presse locale et nationale d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. En effet, dans le souci de satisfaire à ses engagements et convictions, à travailler sans relâche pour le succès de l'APR et de la coalition Beno Bokuyaka dans le département de Thiès, le maire, conscient des enjeux de et de l'importance des prochaines élections législatives, désire par le canal de ce point de presse communiquer sur le programme établi par les élèves et étudiants républicains dans le cadre de la préparation des élections législatives dans le département de Thiès. Sur le plan politique national, le maire départemental félicite son Excellence, le président de la République Macky Sall, et l'ensemble du gouvernement pour les réalisations extraordinaires du PSE et du PUDC. Le département de Thiès n'est pas en reste. Avec les nombreuses réalisations, château d'eau, capacité de 2000 m3 et station de pompage de 10 000 m3, mise en circulation d'une centaine de minibus, rénovation du stade mythique de l'Adjor, relance des activités de la SNTS, démarrage des travaux du réseau ferroviaire dakar bamoko autoroute Thiès-Touba, autoroute Thiès-AIDB, érection de Thiès en un pôle universitaire avec la construction de l'ISEP, d'un espace numérique ouvert et non, et l'instauration de la deuxième faculté de médecine du Sénégal. Toutes ces réalisations, à côté des divers projets, atteste de la considération et de l'intérêt que le président Macky Sall attache à la cité du rail. Nous l'avons compris et nous nous engageons à continuer à travailler avec détermination dans l'objectif de lui assurer une majorité incontestable à l'issue des prochaines élections législatives et un second mandat. Le bilan du président Macky Sall constitue notre arme principale Face à cette opposition désemparée et dépassée qui, sur la base de théories et convictions qui se démarquent de toute objectivité, essaie désespérément dans une activité qui intègre quotidiennement des informations, mensonges et chimères de tromper la vigilance des Sénégalais. Sur la situation politique du département, le maire félicite les populations thiessoises pour leur inscription massive sur les listes électorales. En effet, on dénombre plus de 335 000 inscrits, soit environ 40 000 nouveaux inscrits, avec une bonne représentation de la jeunesse et en particulier des élèves et étudiants. Ces chiffres renseignent sur la dimension du chantier qui nous attend, mais au regard du travail remarquable accompli par les différents responsables dans le cadre de ces inscriptions, l'espoir d'une victoire de la coalition Beno Yakar est permis. Le maire félicite aussi et surtout le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokuyakar, le docteur Augustin Tin, non moins coordonnateur de l'Alliance pour la République et l'ensemble des responsables de l'APR et des partis alliés pour la grandeur et le niveau de dépassement extraordinaire avec lesquels ils ont dirigé les travaux relatifs à la préparation des élections législatives. En effet, au moment où les heures se signalent par leur fréquence dans d'autres contrées, Benno boya Thiès, dans un climat paisible, peut se féliciter d'avoir un coordonnateur et des responsables dignes, intègres et engagés pour l'atteinte des objectifs de victoire aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. Par rapport aux maires, les élèves et étudiants républicains comptent s'investir pleinement pour une victoire éclatante aux élections législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. Pour ce faire, le, maire a mis sur pied un programme axé sur trois activités. Organisation d'un ndogu avec les étudiants républicains de l'Université de Thiès. Autour des réalisations du président Macky Sall dans le domaine de l'enseignement supérieur dans le département de Thiès conférence sur les réalisations du président Macky Sall dans le département de Thiès, campagne de communication dans les universités, instituts supérieurs de formation, euh, lycées et collèges du département de Thiès, participation aux initiatives de la coordination départementale de Beno Bokoyakar dans le cadre de la campagne pour les élections législatives. Le maire compte sur l'appui des responsables locaux pour la mise en œuvre de ce programme et s'engage à travailler dans une dynamique à jamais acquise à l'atteinte des objectifs relatifs à la majorité à l'Assemblée nationale et à la victoire à la présidentielle de 2019. Vive le président Macky Sall, vive la coalition Benno Bokk Je vous remercie. Président Macky Sall amna li d'abord bi ni pour pour gérer une fois pour toutes problème yo xamni ne Thiès waay ñu ngi jànkoonteeg moom problème yoyu ndox ci la bokkoon té tay jii nii on voit que président mi ngi bëgg doté un château d'eau de 2000 m3 ak station de pompage bu 100000 bu 1000 m bu 10 000 mètres cubes tey jii nii mënoo ni population thiessoise bi boo leen sondee boo duggee seen biir doo constater ni que mise en circulation lu toll ni lu ëpp lu ëpp témer bus mënul ñak impact ci koom-koomu thiessois ak ci sen mobilité. amna lenen moy mooy lan stade Lat Dior sport bi xamnañ nañ toll Thiès tay le fait que président bëgg rénover stade rien que initiative bi rek foog na luñu wara rafet lu la te gis nañ ni def na ci ay djégo yo xamni yaakar nañ ni fi ak euh dir bu new inshallah stade boobu nañ ko livrer jeunesse thiessoise pour que sport encore mëna jogat dund biir Thiès NSTS gis nañ relancer nañ activité aussi travaux euh, réseau ferroviaire Dakar Bamako aussi ça gis nañ ni mi ngi fi am autorité la Touba ñun ñëpp xam nañ portée économique am ak vision président ci lan la tegu Promoville aussi donne ben réalité bo xamni bir Thiès ni ngi commencé gis fruit yi am zone yo xamni ni xalaani sax na am tali tay di ni président vraiment limu nas dal boko teunké tënkee doon na loo xam ni lu ñu mën rafetlu la rek té ñun les jeunes ñi ngi taxaw tay taxawaayu manam xaar projet yoy jot ci projet yoy ba paré accompagner président pour que fim mu Thiès nekkoon tay di ni fi ak président di fi jógee ñu mën a au moins yeen xeetu souffrance yi pour Thiès. maire départemental waaw ñàkkuñu tok sans activité parce que bo ba légui duñu tok diir bu yagg té waxuñoo ak askan wi. lépp lu parti bi tënk wala lépp lu parti bi organisé maire département la mi ni ciy jéem dox au niveau des universités aussi am nañ fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu ngi jàppale suñuy camarades élèves et étudiants niñ ko mënee ci fànn social ci fànnu xam-xam en organisant des rencontre entre les aînés ak ñiy doog a ñëw te am na yenn ñuy nas peut-être calendrier universitaire bi moo am perturbation yoo xam ne mooy waral yenn aléas yi di am. mais au niveau du maire il y a toujours eu un programme et ce programme bobu non foog ni conférence de presse bi sax ci ci ci ci cadre programme bobu lay lalu. tok nañ xalaat si bu baax ba génne ben programme li ci dess nak moy xeyna nan lañ koy euh matalé te je pense que ni bon comme ni ko xamé rek am nañ ay euh, possibilité ñun ñëpp ñu dajalo di waxtaan suñu biir te bo xolé ñun ñu ci bëri si ñun ñi ngi université bu Dakar mais amna ay suñu mbokk yo ni université le plus souvent pour activité je pense que ni ñun sax suñuy université institut parce que tamit ñun réalisation ak avancée le président de la république def ci côté enseignement supérieur bi dinañ woote ay panel ay panel yoo xamante ne nii dinañ dinañ invité ay kàngam ay kilifa yoo xamante ne nii ñu ngi si biir gouvernement bi waaye ay doomu Cees lañu ñoom tamit ñu ñëw gën ñoo mën a euh, euh, ñaax gën ñoo mën a tegal si réalisation yi nga xamante ne nii président def na ko si Thiès te je pense que ni tamit bu weesoo lool tamit dinañ programme ay caravanes yi nga xamante ne nii dinañ sillonner euh, quelques artères au niveau de la ville de Thiès et du département pour gën a mën a waxtaan ak population yi. si kaw non wa lolou loolu yaakaaruma mu doon loo xam ni euh, muy doon comme euh, figuré comme grande ligne programme bi parce que quand xam tay xarale yu melni Facebook nous xam tay internet place bi mu am ci communication xamni le maire départemental a déjà pris ses devants ci kaw lolou non on a une page bo xamni avec plus de 200 membres yo xamni vraiment c'est des membres actifs ils prennent part à ce qu'on fait te euh, leer na ni Facebook par exemple wala internet. Voilà, yeneen yoonu xarale yi muy émission radio. yeeg lépp maanaam lu ñu def sur le plan communicationnel pour que les élèves et étudiants en particulier du département de Thiès puissent avoir l'information au bon moment dinañ ko def te xam nañ suñu yéene xam nañ suñu tolluwaay ci li ñuy def pas-pas bi mooy que fexe joxaat président majorité à l'Assemblée nationale te loolu Thiès waru cee des ginnaaw Thiès a cee am wàll nous avons un baobab à déraciner te waajoo ci boppam newoon na ni bés bu ñàkkee Thiès dina ba politique cette fois-ci les étudiants ñoo koy lancer défi lui faire comprendre que dina ci es inshallah yalla du fay wax baye jëf te tay jii ni ñi ngi delluwaat encore di gërëm suñu responsable di leen féliciter parce que liggéey bi rafet na rafetay bo xamni tay tey ni gëm na ni amul ben coalition bu mëna raw euh, coalition Benno bok yaakar à l'issue des élections parce que ñi ngi ci liggéey te dinañ ci continuer liggéey inshallah concernant iris Seck cas boobu foog na ni c'est un cas qu'on est c'est mënatuma ko sax wowe équation parce que taxawon na ni ma ñàkkee ba ba ñaké région de Thiès bañ ko ko waxé ñi farak moom ni département la waxoon waxul woon région ba bu ñàkkee département nee nañ lan commune la wax waxul département commune bi dina ko ñàkk incha allah te bu boobaa foog naa ni dina gore rek dellu ca kàddoom li am nag ba am mooy que APR tey jii nii ak ay alliés dañ taxaw temb taxaw Thiessois am nañu communiqué ak Thiessois yi et les enfin compris Thiessois xam na ñi yéene Thiès ak ñi yéenewul Thiès et incha allah au soir euh, du 30 juillet dinañ gis ni carrément APR jël na lim moom Benno Bokk Yaakaar jël na lim moom et que Idrissa Seck ce sera un souvenir pour les Thiessois. ci kaw loolu noonu comme niñ ko xamee rek maire bi moom instance la bu bokk ci parti bi comme femmes yi ni amee seen kuréel jeunes yi am seen kuréel étudiants yi tamit noonu la ñu amee seen kuréel je pense que ni tamit. Euh, réunion de coordination départementale bi mujjé am rek donc le maire était convié assisté nañ ci te wax nañ ci tamit suñu position par rapport ak euh, situation politique ci département bi mais tamit ñi ngi gën a ñaax autorité. yi rek ñu gëna bayyi xel maire bi xamni tamit étudiants yi amna lu bëree bëree bëri lo xamanteni ni dañ ko wara apporter ci liggéey bi mais tamit su weesoo lol dal ñi ngi sant le coordonnateur départemental muy Augustin Tine mom mi nga xamanteni ni bayina xel maire bi ta lépp lu parti bi di organiser à Thiès tamit da ciy impliqué maire bi quoi.